remise u ay jakarta ak ay frigo ak ay machine u ñaw ah, nii mu demee nii nag dedi noonu rek la mën a deme ndax bakkan daa foor waxuma ay bakkan to fii ñu nekk ñaari bakkan dañ fee wàññeeku moo tax ñu defee ko nii ah ñuy sant ki nga xam ne nag mooy madam Guèye difat Fatou Diané ndax noyo bii mu noyu waa commune Patar yaakaar naa ñëpp a ci war a kontaan ñaanal ko it lii nga xam ne dañ ko koo dénk yàlla na mu am ci li gën a kawe njortam ak ki ko ko dénk pour ñu ubbi waxtaan bi nag dañuy ubbi nii rek. dañuy xool li nga bëgg ñu ànd ak yow ba fa nga koy jëndee ñu jënd ko jox la boo nee damay sàmm ay nag laa bëgg may la ñaata nag nga ni ma dama bëgg juróomi nag juróomi nag yi lu muy jar nga ni ma million lay jar damay ànd ak yow ba fay jënd juróomi nag yi. tey joxe nagu ya taxaw ma fay ko nga jël say nag dem bu dee dangaa yor tool ngay dama bëgg a aménager sama tool bi loo soxla ngeen dama soxla teen wala damaa soxla forage damay ànd ak kii jën bënn forage bi sa tool bi mu na ko ma fay ko dem yow nga des ak sa forage bu dee dangaa am leneen ak leneen poulailler nga am nga ni sama poulailler baa ngi dama cee bëgg a dugal ay ganaar damay ànd ak fa ñu jënd ganaar yi poussin ma jënd poussin jënd aliment jox la doog a dem ñun noonu la ñuy liggéeyee loolu la ñu sant ñu def ko noonu la ñuy liggéeyee donc képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci dara ak lu mu mën di doon loo xamante ni rek l'islam nangu na ko ndax li ñu bañ rek mooy domaine yi l'islam nanguwul mais yeneen domaine boo leen find rek te xam naa ne xam ngeen ñi l'islam nanguwul kon jaruñu ci sori képp loo xamante ni l'islam nangu na ko te yéen a ngi ci boo leen ñëwee ci ñun damay liggéey te lii laay liggéey bëgg ngeen jàppal ma ci dañuy xool la nga xamante ni loolu war a jënd jënd ko jox la maçon bi bu ne damay damay tabax wala damaa bëgg tabax te aw ma ciment dañuy àndal jënd ciment jox la menuisier bi bu nee damaa bëgg defar ay meuble mais aw ma bois ma ko defee ñu ànd fi ñu jëndee bi ñu jënd bois teg sa loxo nga liggéey jaay ñëw fay maanaam domaine boo laal kii jaay lëjum sax lëjum sa marché ba bu ne damaa bëgg sama table bi ma sàgg ak lëjum ba mu fees bu ñu xamee ñaata ngay jënd ci lëjum dañuy ànd ba fa nga koy ñu jënd ndugg mi jox la nga teg sa table nga jaay ki nga xamante ni da dafa bëgg ubbi école. ñu damaa bëgg école bi nga tabaxal ma ko fii xale yi jàng may fay mais dañuy tabax école bi xale yi ñëw jàng fay nga ñëw fay donc amul domaine boo xamante ni rek mun ngeen ko teg fii te ñun mënuñu leen cee fekk waaye day fekk boobu ñu xam domaine bi nga nekk ñu ànd ci ak yow bu dee boutique nga yore nga ni sama boutique dama bëgg ñu chargé ko dañuy ànd ak yow fa nga jëndee Dakar wala Diourbel nga wàcce sa bagage li nga bëgg bu matee million ñu fay borom boutique bi nga jël sa bagage nga dem. moo du ñu teg si yow xaalis waaye foo ko mën di jëndee rek gis naa fi ay jigéen ñu nekk fii ci pataar dañoo ñëw seet si man ñu ñoom dañuy ràbb ay sër sër ñuy ràbb dañuy ràbb di ko yóbbu dakaar may leen da ngeen da ngeen dajaloo ba nekk juróom wala fukk ngeen ñëw ñu ànd ba fa ngeen jëndee perkaal bi ak malikaan la xooma mais ñu jënd ko jox leen ngeen ràbb boo leen ràbbee jaay après ngeen ñëw fay donc amul daal loo xamante ni rek war nañoo jaaxal ci liggéey waaye lu ci mën di am faaw ñu xam ci ñu xam noo leen koy jëndee ak fa ngeen koy jëndee ñi ma àndal muy waa di ko ñaanal gudd fan ak wër di ñaani yàlla bàyyi ko kanam mu yàgg yàgg maa ngi nuyu jigéen ñi fi teew yëpp yëpp yëpp moom madame la coordonnatrice docteur Fatou Diané ñoo ngi lay ziar di la nuyu ak euh, ñun ñi nga àndal ñëpp ñi nga ñoom jàbba ñoom dem jaani ñëpp vraiment ñëpp ñoom Fadel ma ma ma nga nuyu ñëpp di leen jox seen yéeguwaay monsieur le maire dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax gannaaw ba ñu sante euh, suñu borom dañuy sant président de la république mi nga xam ne dafa am vision ba tànnal ñu madame Guèye Fatou Diagne mii tegal ñu ko suñu kanam tegal ñu ko fii ci département de Diourbel tegal ñu ci région de Diourbel tegal ñu ko fii dans tout le Sénégal ñëpp Fatou ñu ngi lay laaj man nga sama portable noppeetul ñëpp a ngi oote ana faatu ana faatu ana faatu Sénégal yëpp la sax kon ñun buñ ci amee lii nga féetee fii ci département de Diourbel dañuy gën a sant yàlla bu baax a baax a baax ab mbay sàmm yàgg nañ fi monsieur le maire avant 2012 ba 2012 ñëw ba président Macky gagné pouvoir bi ba toog waaye li ñu am na suñu compam lii am fii ci commune Patar mosuñu ko am lii ñu am tey ci département de Diourbel mosuñu koo am te loolu yëpp Fatou Diané moo ko waral bu ko neexoon mu def ñi fi daan nekk na nañuy def duñu gis duñu dégg man mii nga xam ne am ndaw dong laa di wax di jooy di def mu ne ma jonkoon fa jooy ba sonn mais mënuñoo gis dara lu ñëw ci département de Diourbel dinaa ko wax fépp nag mais lii Dame Gueye Fatou Diané kontaan nañ ci yow sant nañ la sant bu amul ab ndax lii lu rëy la les jeunes kenn chômeetul femmes yi amul woon luñ jàpp tey ku nekk am nga loo jàpp kon dañ lay ñaanal yàlla suñu borom def la premier ministre ndax ñun xeeb nañu ministre tey xeeb nañ ñu ñu def ñu le ministre ñun nag jigéenu département bi dinañ takku taxaw comme une seule femme comme ni ñu ko waxee un seul nekk sa ginnaaw accompagner la jàppale la gunge la ba foo bëgg egg rek ñu egg fa incha allahu rabbi en tout cas mënoon naa wax suba ba ngoon du doy sant nañ la gërëm nañ la te bu bu dul loolu aussi ñu ngi ñaan suñu DG président Moustapha Guèye suñu borom jox ko conseil départemental ndax